bëggoon aussi sant balaa may commencer sant ñi fi ñëw ñëpp fekk si visite bi di si jiital président bi Sëñ Mbacké di nga xam ne moo jiite football bi ci département bi ci fekk aussi le président de local ak président Avenir Mbacké ak mbooleem ñëpp ñi nga xamee ni ay sportif lañ ak ñu yëngu ci wàllu sport ñoo xam ne ni ñoo donc rafet rafetlu liggéey bi ni mu demee nii parce que xool nañ fët li ci ëppoon solo mooy fii ñu taxaw police bi police bi teg nañ ko loolu moo ci ëppoon solo te gis naa ni tamit police bu baax la maanaam qualité bi qualité bu wér la mooy bu FIFA certifié donc dina mën a mun nañ ci football lu yàgg mën nañ ci football fukki at fukki at ak juróom su fekkee ne entretien bi baax na loolu daal moo ci ëppoon solo bon li ci des nag mooy travaux yi génie civil bi ak yooyu am na lu des donc euh, loolu nag euh, entreprise bi nee na peut-être fii fin janvier incha allah mën na ko terminer waaye il faut que ñu xam ni li ko gën a actuellement mooy problème courant bi stade bi amagul électricité te tant que amul courant euh, éclairage bi kenn mënu ko test loolu daal mooy gàllankoor bi nga xam ne moom lañ ci gën a nekk waaw loolu moom dëgg la parce que ci information yi ñu jotoon euh, dañ ne woon stade Diourbel le vingt lañ koy tëj xam nga fii région bi yëpp benn stade lañu am actuellement moom la ñëpp di utiliser voilà buñ ko tëjee le vingt fii rek lañu am comme stade boo xam ne ni mën nañ ci football te fii yaakaaruñ ne euh, dina mën a disponible fii ak fin janvier donc xam naa dinañ fexe ci kilifa yi nga xamee ni ñoo yor wàll boobu ñu sàkku ci ñoom ñu mën a repousser délai boobu ba nga xamee ni Mbarké dinañ ko mën a utiliser après ñu mën a tëj stade bi ba soo ko commencé waaw Bambey tamit liggéey bi avancé na bu baax donc pense que ñii euh, après fête yi rek ñoom ci la ñuy dem Bambey ci la ñuy teg euh, pelouse Bambey voilà ak euh, aussi commencé travaux complémentaires yi ci ci gàttal daal état d'avancement bi am nañ ci satisfaction waaw stade bi nag euh, capacité bi am na solo parce que boo gisee à part bu Diourbel daanaka mooy stade bu gën a ci région bi maa ngi naan mën naa def ba ay ñaari junni place donc day wane ne rek stade bu mag la mais bu ni tamit doy na ci fii ñu nekk ci département Mbacké parce que ñaareelu donc même bu ñu mënoon am beneen stade sax dolli ko ci dafay gën a baax rek parce que fii moom potentiel gën a mobiliser wu rek parce que lii yëpp tamit seen taxawaay boo ko indi donc ñun ñëpp gën a mobiliser wu ba suñu football ak suñu sport gën ci